La betterave est considérée comme l'un des légumes les plus bénéfiques. Elle est riche en antioxydants, en vitamine C, B1, B2, b en acide folique et pantothénique. La betterave a également une forte teneur en minéraux tels que le potassium, le phosphore, le magnésium, le calcium, le sodium, le fer et le zinc. Faible en calories, la betterave est idéale pour les personnes souhaitant perdre du poids. 100 de betterave représente calories. D'autre part, sa couleur est liée à la présence de pigments rouges connus sous le nom de bétacyanine. Vous vous demandez certainement les bienfaits de la betterave. Elle stimule l'échange de substances dans le corps pour le rajeunir et le revitaliser, régule la pression artérielle et protège le système cardiovasculaires, réduit le taux de cholestérol dans le sang, améliore la fonction du foie et évacue les substances toxiques. Elle améliore aussi la texture de la peau, des cheveux et des ongles, neutralise l'excès d'acide dans l'estomac. La betterave traite la constipation et améliore l'humeur. Les bienfaits de la betterave sont pour le moins étonnants. Sa consommation s'est avérée bénéfique pour les personnes souffrant de certains cancers. En effet, le docteur médecins autrichiens recommandent de boire du jus de betterave en cas de cancer et de leucémie. Mais attention, la betterave n'est qu'un complément au traitement médicinal approprié et à la consommation de vitamine C pour renforcer le système immunitaire. Donc, chers téléspectateurs, nous espérons que vous n'avez pas oublié de consommer la betterave dans vos menus culinaires, surtout pendant le ramadan. delloo njukkal euh, Moussa Moussa Sène moom si jàngat yooyu muy def euh, sunu gan di ñuy dugal nii moom mooy euh, docteur Keba Tamba docteur kebaa Tamba nutrithérapeute la maanaam daal koo xam ni moom wàllum lekk si lay génnee paj te pajam it si lekk lay toxoo docteur ni ma ko waxee noonu la. exactement <laughs> ñu lay nuyu la maa ngi lay delloo ziar du nuyu ñëpp ñu fi nekk yaakaar ni. nan la nan la nit di def ba nekk nutrithérapeute xale yi bëgg nekk nutrithérapeute <laughs> déglu leen euh, docteur Kewa. waaw nit di def doon ko moom du doon lu yomb parce que science bu bees la te science bi boo xoolee day évoluer nutrition la ñi ñi xam donc am na nay nutritionniste maintenant la dem nañ ba dépasser cadre nutrition xam ni. nekk rek di wax ok ñam bi lii lay def lii lay lii mooy teneur comme par exemple betterave bi lii ak lii la am pour ñun léegi presque amatul solo wala nekk di wax ok alimentation équilibrée amatul solo nit ki feebar na feebar yu bëri tey source bi cest à li joxe feebar bi si lekk lay jóge donc suñu bëggee nag nit ñi bañ a feebar wala nga feebar bëgg améliorer sa état de santé il faut ñu woon la exactement yan façon lekk ngay lekk pour mën a faj sa bopp. yow docteur nga. exemple da nga jàng ba nekk docteur si lan. pharmacie d'abord ah. docteur pharmacie. en ah, pharmacie waaw après nga dem def spécialisation. en nutrition et puis ma continuer nag. ah loolu de moom njàng la moom euh, ni naa penda yaa ngi xool docteur. waaw professeur dañuy xool docteur. parce que docteur ni naa daa fonk jàng nag. parce jàng bi daf si am solo. Mm-hmm. Hmm? pour nga xam li ngay wax fan nga koy teg parce que tamit boo xëyee rek ne nit ñi waru leen lekk lii waru leen lekk lële hmm. wala lii ngeen di lekk ak lële nu ngeen ko lekk tamit te nga xamante ne ñu ngi ci société de la consommation léegi hmm. entreprise yu mag yi nga xam ne ñu ngi liggéey ci agro alimentaire ñu ngi génnee ay façon ngi lekk ni yoo xamante ne dafay laaj ñi nga xam ne ñoo ñuy ne lii ngeen di lekk baaxul si yéen ñu am xam-xam hmm. seen xam-xam màcc li ñuy def dañuy saluer vraiment euh, kii euh, docteur Tamba liggéey bi muy def parce que man depuis deux ans juin bi def na ñaari at bi ma découvriree li nga xam ne moom la docteur Tamba di liggéey et c'était vraiment pur hasard su dama demoon rek poursuivre di nuyu waale Aminata Diop suñu doyen journaliste li nga xamante ne moom moo ñu permettre ñu mën a fekkee li nga xam ne moom la docteur Tamba di def euh, docteur xam nga euh, professeur dañuy wax ne yenn saay euh, li ñuy wax expliquer ba pare nga am preuve ci li ngay wax dund ko dafa am solo man li docteur Tamba di def dama ko dund donc mën naa si am ay firnde yoo xamante ne duma ko si joxe. te am na si ñu bëri ñoo xamante ne bu ñu xoolee Nina y a deux ans ak ninaa actuellement gis nañu am na yu changé. physiquement mais au physiquement. Mm entre deux mille euh, deux mille euh, juin deux mille seize ak léegi perte naa au moins quinze kilos. ci changer ni ma lekkee. Hmm. lan nga changer si li ngay lekk. sama alimentation si boppam sama ndékki dama daan xëy lekk mburu naan meew. Euh, ndekki comme ndekki Sénégal wala pain chocolat wala sandwich reeru démb bi ak yooyu wala cere sax ndekki mburu de toutes les façons ndekki bi moom fale ba am mburu def omelette def si mburu bi def des plat def si charcuterie yooyu donc. léegi nag depuis léegi. léegi ndekk bi dafa changé. <laughs> est-ce que docteur bëgg nga ma wax ko. Ah, parce que comme dafa dafa am programme ah, académique <laughs> téléspectateur yëpp a ngi lay dégg. docteur mën naa wax wala ma noppi. <laughs> non wax ko nii peut-être du am porte bi. waaw du mais lan moo tax nit war a changé. non mais euh, non ah, lan la tamit. lan moo tax lan moo tax ñu war a changé xam nañ ko. parce que foog nga lekk lu baax pour mën a wér. loolu daa ko moi j'étais malade. par exemple bi may dem man dama feebar. mais Nina léegi looy ndekkee. léegi <laughs> donc Nina lan lay ndekkee le matin mu xëy damay naan ndox d'abord damay naan ndox. agent agent. ñaata ñaata litre wala. mën naa naan genn wàllu litre wala moitié un litre cinq cent wala un peu plus. mais mhm. au moins dinaa naan deux verres d'eau. d'accord au moins. bu ma ndékk bu ma xëyee bu ma yeewoo. ba mhm. pare naan ndox léegi bu ma naanee ndox ba pare damay naan un jus d'agrumes mooy mën na nekk limon. limon pamplemousse orange. orange waaw. bu ma lekk naanee loolu ba pare lekk ñaari banaan. ñaari banaan jeex na. yenn saa lekk pomme wala mango comme mango léegi am na wala papaye wala euh, benn melon bu ver bi. Mhm. ça dépend. fruit fruit. de saison yi am. Sénégal fruit laay ndekkee ndox. jus de d'agrumes ak fruits. mooy sa ndékki mooy sama ndékki. añ ba bu ma xiifee si diggante bi mën naa lekk ba kii nu mu tuddati euh, noix d'acajou. waaw nuñ koy waxee ci wala darkase kii euh, euh, non pas darkase loolu. acajou waaw mooy. waaw mun naa. mun naa non pas konkor dama ko doon lekk ba ma gën a nekk xale parce ko sax waaw ndaamaraas wala wala yu de xeet yu demee noonu comme man dama bokk ci séeréer yi bëgg gerte mais dama allergique gerte malheureusement pour man mais am na ñoo xam ne ñu lekk loolu añ bi lan lay euh, bi may door commencé añ bi dama daan lekk sama añ normal ceebu jën laa daan lekk wala des fois ma ma bu fekkee ma génn sama kër du ma añ bu ma ñibbisee ngoon bi ma añ looy añee ma lekk sama ceeb jàpp sama ñaam def ko def ko pendant presque un an docteur Tamba les premiers mois dama daan trois premiers mois six mois les six premiers mois j'ai perdu dix kilos. looy reer rek li ma ndekkee reer moom de professeur nu mu gën a woyofee. da nga bàyyi reer. nu mu gën a woyof non ma reer damay reer mënuma bañ a reer. mais lu woyof daal gën a reew je dis mais lan ngay lan ngay reer jën bu ñu lakk wala bu ñu saaf. Uh-huh. yenn saa yi yenn saa yi ñu boole ci yeneen affaire mais forcément il faut que mu am salade. il faut mu am salade na nekk suu mën na nekk leneen. des fois nag ma bañ a lekk loolu lekk reer comme ñëpp sénégalais yi ni ñuy reeree comme ñëpp. lekk cere mais li nga wax moom gis nañ ni par exemple. suukar diw xorom. yooyu non mburu bi systématiquement bàyyi na ça fait deux ans ndekkeewuma suukar sa veut dire jël kinkiliba wala leneen def si suukar c' est fini je ne mange pas de pain duma def sucre ajouté dama ko bàyyi. est que bàyyi bi bon man moom man man euh, surveille li muy wax nii surveiller pour man ñëpp la war te man sa pap moom ma ci gën a dimbali moom su ma waxee mu ne ma D'Artagnan disait sobriété longue vie. <laughs> sobriété longue vie waaw moom yàlla na ah, gudd fan loolu moo euh, soxna su mag lool loolu moom mooy ni ma koy. gisee su ndaw si nag. ñoom ñëpp yàlla nañ gudd fan. waaw moom bu guddee fan moo gën ci man. <laughs> macha allah waaw <laughs> ah, donc euh, donc c'est extrêmement important. nit ni ñu war a bay nga xamante ni àdduna lépp xam-xam la. te weeru koor bi damay am ay télé yu may seetaan. gis journaliste yi. ñuy yendoo lii baax na lii baaxul lii baax na lii baaxul. alors que yow même bu dee dem nga reportage bàyyil ki am autorité. mu jël ko en charge. docteur bi nga xamante ni moo jàngi woon loolu te gis nga li mu moom teewaayam fii dafa am solo nga xamante ni sax ci domaine bi muy intervenir nekk nutri nutritionniste rek mën nanti naa bañ a doy dootul doyati léegi parce que xam-xam bi yóbbu nañ ko beneen level. mais li nga xamante ni aussi bëggoon naa ko wax par rapport ak manque de spécialité dans certains domaines ci Sénégal mooy pour man l'enjeu en un moment donné c'est pas d'amener les gens à aimer davantage quelque chose qu'ils aiment déjà. Mmh. C'est-à-dire que c'est de les amener à les faire aimer quelque chose qu'ils n'ont pas, qu'ils ne connaissaient pas wala loo xamante ni xamuñu ko woon. Alors que sur beaucoup de branches aujourd'hui mhm. bu ñu bu ñu conscientiser xale yi nga xamante ni ñoo jàng médecine wax leen ne y a des mhm. de des pathologies lañ koy wax yaakaar naa à prendre en charge am na ci yoo xam dañ ko war jël en charge foog ñu jëm leen ci teel obésité c'est un problème réel <laughs> absolument donc li nga li nga doon wax tout le temps yow pako mooy la stratégie mhm. boo xamante ni teel a nampatal xale yi ñu teel a jëm ci yenn domaines yoo xam sunu réew yi soxla nañ ko parce que continuer di jéggaani leneen man na ma yàlla jégal mais damay xaw a ñaanu njort su ma gisee ci yenn domaines yi. Hmm. ay ñeneen ñëw di ko jël en dama naan est-ce que dañ koy def rek te yàlla tax. Hmm. est-ce que amut leneen lu nekk ci ginnaaw est-ce que seen réew jël xaalis bu bëri di ko ci def donc. am na yoo xam seen stratégie la bi. seen stratégie la am na ci loo xam pour man. il faut que ñu gën ci am taxawaay encore une fois euh, dafa am solo Nina di la di la féliciter que ceux qui savent gouverner mais que ceux qui savent parlent aussi. est-ce que Khadija. professeur choix wu sujet bi parce que comme ni ko ñëpp waxee rek dañ koy rafetlu parce que en général dañuy faral di dégg ñu naan il faut manger cinq fruits et légumes par jour mais mm. Sénégal moom duñ ko doxee ñu moom lu dul ceebu ñun xamuñu ko lu dul mburu xamuñu ko donc di féliciter Nina Penda Faye maintenant euh, pertinence sujet bi mooy ñu ngi waajal Korité te dañuy faral di wax ni weeru koor bi en général daa am loo xam ne suñu organisme daf koy gagné parce que journée bi yëpp dañuy toog duñu lekk donc li ñuy bu fekkee heure ndog bi xool nañu bu baax li ñuy lekk euh, am na loo xam ne suñu suñu suñu wérgu yaram suñu yaram dina ko gagné mais naka la def ba li nga xam ne suñu suñu suñu yaram gagné na ko bu jour Korité bi wala après Korité bi ñu bañ ko perte mu bañ a doon loo xam ne en fait zéro la dañoo woor juste pour euh, tuyaaba yi peut-être mais wàllum nutrition ce sera zéro important <laughs> aywa Fatima si parce que nii naa ne dafa régime bi wax pomme wax mhm. na ñoo xam ne régime régime la déjà yow quand tu ne prends pas le petit déjeuner tu sais le petit déjeuner parce que moi j'ai toujours été anti-régime mhm. j'ai toujours refusé de mhm. suivre les régimes je de toute ma vie je n'ai jamais suivi un régime c'est pas un régime c'est un programme de vie. parce que tu changes ta façon de manger. Mhm. te bu njëkk ñun ni daan lekkee avant mburu di dugg ak leneen. Mhm. obésité amul woon da nga daan xëy ndekkee cere bi nga xamante ne moom nga reeree démba ñeexu baase amul gerte amul dëwlin gerte bu bu ci nekkee dëwlin bu ci nekkee u gerte bi la mais du nekk dëwlin boo ci yokk du nekk tomate concentré du nekk leneen tout était naturel ce n'est plus le cas non un choix de vie c'est un mode de vie c'est pas quelqu'un qui n'a pas les moyens de se payer non retire le régime <laughs> ah benn banana wala benn pomme le matin qu'est-ce qu'il doit manger à la place ma pare ci loolu dem je vais parler en tant que sportif de haut niveau ngay def de haut niveau quelle doit être ta sa alimentation na la war a mën a nañ ko nan nga ko mën a tëralee te mën nga am bañ a am yenn lekk yi nga xam ne war a mun a remplacer yi ngay joxe en énergie. aywa Paco. waaw man euh, li may wax mooy. Sénégal ñëpp xam nañ ni que les Sénégalais mangent mal. Mm-hmm. rawatina weeru koor on se surcharge le. Mm-hmm. mais dafa am euh, lu ma frappé ci lu Nina wax parce que. man euh, seeti naa benn nutritionniste ah. mu ne ma pour nga nga nga jombale sa jàppale sa bopp pour bañ am yenn feebar yi mhm. ah, il faut manger sain mais nee na ma aussi il faut éliminer tout ce qui est sucre mhm. parce que soo dinee sucre sa biir rek. yàlla nee na la musal ci ay type de cancer yi ay diabète yi ay affaire yu demee. suukar baaxul donc nee na ma même coca cola bi ngay naan sax baaxul. suukar mënut a ñàkk de. waaw nee na daal il faut ma bëggoon la yow ban jàngat nga ci am mais nee na ma li gën a important. mooy il faut éliminer tout ce qui est sucre. aywa euh, docteur on va commencer par euh, Khadija nee na euh, par exemple ñu ngi nii di euh, waajal korité Euh, nit ñi dañuy gagné dara parce que koor gi dafa am lu muy def léegi lan ngay def ba préserver loolu nga bañ ko perte après koor euh, gi waaw boo gisee sa koor gi man pour man li ci gën a am solo aspect spirituel ak aspect religieux aspect religieux bi la ñi ñu gën a xam mhm. mais de plus en plus aspect thérapeutique bi ñu ngi koy gën a waxtaan pour ñu ñi xam ba tax na man sama combat sax mooy bu ñu paree weeru koor ñi ñu war a continuer di woor hmm? parce que li ci nekk si ngëneel. Hmm. Tunkara am na ñetti yëf yi am si yaramu nit bu wooree. tout est potentiel. c'est-à-dire on devient plus fort boo wooree parce que koor dafa doon comme stress bu ngay teg yaram. mais stress bi bu nit ki bu nit ki demee ba am c'est-à-dire bu dépasser capacité d'adaptation nit ki ça te renforce. loolu koor gi di def donc le fait que nga toog depuis du du matin jusqu'au soir lekkoo ton organisme sa yaram day ut kattan yu muy jéem en place pour faire face. yooyu nag da lay renforcer boo xoolee digestion sa bouffe presque cinquante pour cent de l' bu nit ki defar. Hmm. nga toog journée bi yëpp lekkoo donc énergie boobu yaram bi da koy orienté vers la réparation vers la guérison. parce que ñun ñëpp dañuy am ay feebar yoo xam ne dañ koy sox nii duñ ko xam mais chaque nuit y de réparation réparations qui se font. te loolu pour mu mën a nekk il faut mu am assez d' énergie disponible te énergie boobu tant que yaa ngi lekk fees sa biir priorité bi si digestion bi lay dem. Hmm. bu paree si loolu mu dem si au niveau mental donc su amee énergie bu des si la yaram bi di jël pour mun a nag faju réparer réparer léegi soo wooree nag lépp si réparation bi la koy orienté donc foofu lay commencé di faj di defar yu nekk hormone de croissance yu yokku donc nit ki boo wooree boo seetloo ñëpp par exemple booy constaté bu dee par exemple travail intellectuel nga def tu es plus performant boo wooree. woor daal moo gën bañ a woor moo gën lépp. yow après donc les autres jours en fait léegi sax j'ai supprimé le repas de midi. Eh, dégg euh, si l'islam euh, prophète day wax sallallahu alayhi bi gën mooy wooru Daawda moom dafa doon woor un jour sur deux toute l'année. exactement boobu possibilité la. c'est-à-dire hmm? ku nekk yaay xool de plus en plus on parle de jeûne intermittent yaay xool soit un jour sur deux ah oui exactement léegi pour loolu nag tout ce qu'il y comme bénéfice bu ñu paree même sax avant weeru koor bi mais le soir la coupure sax hmm. lekk bi ngay utiliser pour ndogu warul yàq liggéey bi nga am dans la journée ba tax na ñam yi ngay utiliser c'est très important comme li ma lay la ko nutritionniste waxee parce que feebar yi déjà bu ko yaram bi fajee hmm. lan mooy dundal feebar suukar la donc su dee ngoon bi yow bi ngay ndogu yaa ngi jëlaat suukar du ko dugal sa yaram day yàq nettoyage parce que grand balayage la yaram bi di def kon suukar dañ ko war a éliminer suukar nit soxlawul suukar ah bon naturellement merci loolu la ma benn nit soxla suukar on a assez suukar bu ñu am si fruit doy na sëkk pour nit ki fonctionne si fruit doy na sëkk bu yaram bi demee ba soxla loolu moo tax koor am solo bu demee ba soxla sa suukar graisse bi lay seyal defal ko suukar pour nga mun a fonctionner. tey suñ borom. Euh, waaw exactement parce que léegi yow boo xoolee. imaginez par exemple pièce bi mu fees del ak poubelle koor gi ngay nettoyer def grand ménage nettoyer yëpp ba mu génn ba mu set. boo imaginer nga ngoon nga jëlaat ay saleté di ko dugalaat sa biir yi sa biir kër c'est le même phénomène du mos a set donc bu nettoyé bi pare yow li nga war a def mooy accompagner ak consolider travail boobu bi amoon si lan war a ndogoo ndogu bi li ñu si war a dogu mooy lan luy accompagner cest à ko dinaa waxee par exemple ñun dans le travail que nous faisons dañuy dispatcher que am na ko cinq fruits et légumes dans pour ñun yooyu sax c'est des xam ne tey joxewul ay preuves li am solo mooy le maximum de fruits et légumes parce que lu ñuy rechercher parce que souvent boo déggee c'est yenn nutrition il parle d'alimentation équilibrée pour ñun alimentation équilibrée amul sens parce que lan mooy alimentation équilibrée dañu lay wax protéine glucide ak lipide soo tegee sa ceebu jën am nga lépp foofu. Mm-hmm. est-ce que loolu tax na ñi ñu bañ a feebar. exactement loolu laa lay wax ni cest à togg bi moo lay jox lan am nga si lipide am nga si protéine am nga kii mais amul njëriñ pour sa yaram. Mm-hmm. parce que lan la yaram bi soxla mooy li lu ñu wax micronutriment mooy li gën a tuuti lan mooy micronutriment yooyu mooy micronutriment. yooyu dañu ko fi mais yooyu fan nga koy fekk c'est xam nga ñun cër la cër buy dund. soo bëggee mu dund lan nga koy jox. ñam buy dund ñam buy dund. ñam bu dee kon légume cru ah. cru wala fruit. kon yow euh, docteur. Euh, maanaam yow yow daal yow fruitivore nga. ak légumivore. non en fait je man. végétalien végétalien la. non je suis pas végétarien damay damay en fait ñun suñu suñu gëstu. dañuy xool yaram bi lu mu soxla. li nga lekk yàpp. cëy yàpp fu dinaa lekk ginaar dinaa lekk ganaar. dibi nag baax mais dafa am ay ratio dibi nag non dibi baaxul. lu oh, déjà lan laay dibi bi en fait déjà boo xoolee dibi bi. yàpp déjà yàpp day acidifié mën nañ déglu Fatima mën nañ ko déglu waaw waaw xam nga yàpp yàpp li muy def ci yaram sax ba léegi nit ñi xamaguñu ko parce que yaram dafa am ñaari façon liquide yi ci nekk dafa am ay liquide yu acide ak liquide yoo xam ne basique wala alcalin dafa war am équilibre ci yaram bi donc boo xoolee tey ñun suñu type d'alimentation moom la ñuy wax alimentation transformée lan mooy transformer mooy lépp loo xam ne dañ koy lekk dañ koy togg te boo toggee par exemple boo jëlee ñam nga dépassé cinquante degré li yaram bi soxla newatu ci ñun dañuy lekk pour feesal biir ah, mais lekk ñu pour dundal suñu cër donc bañ a dundal cër boobu nag moom mooy processus feebar parce que boo indiwul sa biir alimentation li yaram bi ah, soxla sa biir cër yi la koy dem jël waaw waaw ñu sant Fall bëgg dibi loo si wax <laughs> ñu ngi gaañ seen bopp ñu ngi gaañ seen bopp parce que day lekk dibi pare jël coca non parce que actuellement ñaari possibilité moo nekk parce que ñun boo xoolee sax moom laay wax toujours su may commencer sama communication il faut ñu def distinction entre santé ak médecine mhm. médecine feebar lay toppatoo wérgu yaram du médecine donc loolu il faut mu leer si bopp ku nekk te ba tax na tey lu ñuy wax mooy ku nekk yaay jël sa responsabilité gérer sa wér gu yaram léegi euh, Fatima dafa laaj ne. Euh, ni naa li mu wax nii mode de vie la. mais mode de vie boobu am na koo xam ni amaana amul moyens yi pour def ko amul jumtukaay pour def ko kooku lan nga koy wax. pour man du question mooy question d'information. parce que ku jënd mburu fukki dërëm. parce que ñi ngay wax peut-être amuñu moyen mais dañuy ndëkk ndëkkee mburu mhm. lan la ñuy def si mburu boo xoolee li ñuy ndëkkee c'est plus de 200 francs. Mhm. francs ñaata am nga ñaari banaan. waaw ñaari banaan moo ëpp njëriñ mburu bi ñuy lekk. mais ñaari banaan yi amaana mën na la bañ a téye daal. Ah, si da lay téye da lay téye da lay man la njëriñu njëriñu lekk. waaw xam nga njëriñu lekk. foofu la erreur bi foofu la nekk ñu déglu docteur waaw. erreur bi foofu la nekk parce que ñun si bopp bi la ñuy gérer. lekk bi hmm. njëriñu lekk dundal cër la benn pomme bu riche boo ko lekkee. ëpp na deux repas yi ngay lekk dans la journée. léegi Fatima dafa laaj tamit euh, ñiy def euh, sport de haut niveau. ñooñu yan. Euh, peut-être ñu yeggali question bi par rapport ak korité bi. waaw loolu yëpp. lu muy laaj mooy korité bu jotee nañu yokk fruits yokk légumes yu ñuy togg ba nit ñi mën si yaram yi mën si am li ñu soxla après ñu satisfaire plaisir. kon boisson gazeuse yi ñu naan baaxul. non yooyu moom honnêtement bu dese si man. mais docteur léegi ba parce que nañu bàyyi ñu après nga ñëw relancer. Euh, Fatima dafa laaj sport de haut niveau. waaw loolu ñoom lan nga leen di yan dénkaane nga leen waaw sport de haut niveau boo gisee ñun tey fu ñu toll dañ leen considérer même comme une population à risque. ah ndax pourquoi parce que dans la perception wala dans la mentalité du sportif. comme day entraîné wu di exercer wu di dépenser après lu ko neex lay lekk. Hmm. moo tax boo xoolee sportif de haut niveau seen alimentation moo gën a catastrophique ñoo xam ne sax duñ def sport parce que lu def sport dañ ah man sport moom damay moytu. mais sportif bi dañuy pare demal ko ni pare nga jël sa benn canne di naan pare jël sa benn coca di naan. ak petit pois ah, ak euh, baaxul catastrophique. Ah, parce que ñoom pour ñoom mu ngi dépenser énergie après lu ko neex lay lay lekk. bu demee taal alors que c'est pas ça. parce que quand tu fais un sport de haut niveau. li ngay dépenser ci calories du dépenser trois cent hmm. alors que yow li ngay ingérer dans la journée tu es au-delà de deux cent deux mille trois mille. mais une alimentation saine bu sorool ñaar yi. les deux familles d' aliments ñoo lay dundal mooy fruit yu bëri légumes yu bëri. wàññi lépp loo xam ne sucre sucre la. Hmm. boisson gazeuse boisson sucrée waroo ko naan. docteur deux bananes man su ma xëyee ndekkee ko man loolu suuru ma. non xam nga lu tax nga ne suuru la docteur parce que sa xel fi nga ko non non du sama xel de mais man physique man xëy di dëkk. deux bananes non xam nga yaa ngi ne sportif man du ma lekkatu. du ma lekkatu nga yaa ngi ne sportif doo yow maa la maa la gën a bëgg a lekk. <laughs> xam nga yaa ngi ne sportif de haut niveau. man sportif la xam naa li nekk si sport. li ma la wax ñaari banaan moo ëpp nutritionnellement li ngay lekk. mais docteur yéen ñaar dafa mel ni fi ngeen di waxante parce que yow docteur li mu la wax. mooy sa sa sa xel mi mi ngi ci sa biir. exactement moo tax mu yaakaar ni ñaari banaan yi doyu ko. mais euh, Paco lan nga bëggoon wax. non man dama ko bëggoon wax. le plus grand danger. waaw que nous les Sénégalais nous courons moins les bouillies. les bouillons les bouillons les bouillons. Ah, les bouillons ah. les parce que dañ ci war a wax. docteur loo wax si bouillon yi. parce que man pour man du du combat bu may mëne parce que pour man wax si bouillon yi alors que ñi ñi seen di lekk amu amul dara loo xam ne moo amal njëriñ yaram bi pour man am na ñuy mën a combat boobu. man sama combat tey mooy lan nit ki booy lekk dafa lëbb li ngay lekk sa yaram mun si gis. eh bien est-ce que bouillon yi baax na. bouillon kay mënul baax. bouillon baaxul mënul baax. bouillon baaxul bouillon bouillon yow. maanaam day rey ba pare da ngay crise cardiaque am ay arrêt cardiaque bouillon dama daf benn dama gis professeur nga baal ma benn spécialiste bu ko topp. mais daf ci ay recherche benn juif moo ko créé woon da gis nga bi mu ko créer depuis problème mu Palestine ak Israël moo taxoon parce que da ko doon jox ñu koy jox musulman yi ñu koy lekk tayal di tëdd mel ni ay yaafuus. xam nga du ñu bëgg dem defi lu ñu war a def day wàññi seen xarañte day xam nga da leen ni wàññi seen doole wàññi seen lépp buy euh, bouillon xoolal ma buy bouillon dañ ko war a xeex à partir d'aujourd'hui euh, man de tey dama dem euh, fële yëmbal ñuy waxtaan si bouillon yi man ak benn benn soxna benn waay ñëw dugg si waxtaan bi mais moom day li mu xam mu ne moom personnellement ñoom bu ñuy tàpp euh, kuy ëpp naa def mu ne ma dañuy jël juróomi bouillon xooyoon ko juróomi bouillon rek la ñuy jël dugal ko si lekkam jox ko mu lekk nee na kooku kuy moomu pare na sax eh. Khadija kon ngay moo tax ñuy wax ne moo tax ñuy fii gars yi léegi 30 ans rek ñu bëri dañuy tële 30 eh, ans rek ñuy commencé jël aphrodisiaque aywa silim bi liy jógatu dëkk <laughs> kooku yooyu kenn du ko tudd si télé aywa Khadija avant ni naa en fait dañoo toll ci génération boo xam ne dañoo bëgg corps bu svelte mais en général comme. corps bu corps bu svelte maanaam garder la dagg bu rafet. takk dagg coca cola boobu boo bëggee ba tay guitare mais comme ni nga ko waxee li ñuy faral di lekk coca cola yeeg loolu moo koy moo koy moo koy day du tax mu ñu am lu ni mais par exemple koo xam ne dafa bëgg am ventre plat am de de belle et tout ça ndax ci wàllu alimentation bi mën na obtenir lu ni naa de waaw. non en fait loolu moo tax comme ni li tax ni naa mënuloon accepter le mot régime man dama koy wax ni le régime ni le médicament ni le sport ne règle le problème de de la corpulence. Okay. ah obésité par exemple non. vous n'êtes pas. je suis pas d'accord sur quoi. mooy kii physique bi. non non wax ma la defaru obscur nu. taxaw mais ventre plat bi loo ci wax. non moom laa ñëw si c'est quelqu'un qui a un problème de surpoids. Ouais. quelqu'un qui est obèse. demal xool ñiy daw fii yépp ça ne réglera jamais le problème. seen biir c'est à la source. à la source la ñuy régler problème la source c'est quoi c'est que tant que tu n'auras pas une alimentation qui va permettre à tes cellules parce que poids lan moo koy joxe c'est une accumulation de toxines de déchets. Mm-hmm. mooy li mu la wax nii la santé c'est la maigreur. foo gis ni bu am yaram rek. nga bëgg ko bañ ko il est pas euh, léegi euh, dafa am lu am solo. Euh, <laughs> dafa am lu solo boo duggee hôpital principal. Uh-huh. da koy gis benn bind. Hmm. bu ñu bu ñu askanalee Galien. Hmm. Galien moo xam ne maam daal ñu koy moom jiiñ baa jiiñ naan moom moo amal pharmacie. bi ñu formalisé nii Galien day wax naan. que ton soiton médicament na nga fexe ba li ngay lekk doon sa garab doon li lay euh, li lay faj euh, docteur beurre ak yooyu baax na. beurre ak yooyu yooyu mooy yan. beurre ay fromage. ay ay chocolat yooyu ñu def si mburu yi tartine ak yooyu. non tartine kay dara baaxul si parce que boo jëlee chocolat bi suukar bu bëri la. dëgg la beurre yi ak yeneen yi par exemple surtout lait lépp luy lait ak dérivé du lait yooyu jafe-jafe rek lay indi nit ki. meew baaxul. meew de ñun day duñ ko recommander kenn. ah lu ñuy lekkati ñun. Ah, lekk kay loom laa lay wax nii lekk pour dund. lekk ñam bi ah, ah. boo xoolee Tunkara. Hmm. boo demee tey sur sur si àdduna si am na point yoo xam ne doo fa fekk cancer. doo fekk cancer déglu lu am solo la am na point yoo xam ne doo fa fekk cancer. Hmm. Hmm. na point yoo xam ne nit ñi mën nañ dund cent ans te duñu feebar. génétiquement amul benn différence ak ñun lenn rek moo changé mooy environnement ak seen mode de vie. moom la ñuy wax léegi épigénétique c'est-à-dire suñu environnement suñu pensée suñu lekkin day influer expression suñu gène yi hmm. donc soo amee tey yow sa benn aliment mode de vie moo tax ma ne ko mode de vie la alimentation bu saine un état d'esprit positif ak sa environnement bañ am pollution mais tu peux vivre sans docteur léegi euh, waxtaan xam nga dañ si waxaale dëgg mhm. ñun Sénégal bu ñu xëyee mhm. dañuy jël pain beurre jël meew jël kafe Hmm, ndekkee ko. pain ndambe. pain ndambe ak petit pois yooyu. ndekkee ko ñenn ñi supp ak yooyu bon mooy ndekki bi. léegi midi ñu ñu def ceebu jën wala ceebu yàpp wala. yooyu bon reer ñu def ñu soos wala ñu def cere mais docteur loolu ñu rek baax na. mais baaxul parce que am na ku ko pako mi ñu ne Sénégal mais du Sénégal c'est de tout le monde entier suñu lekk moo baaxatul parce que lekk bi mooy lan. nu mu tudd industrie alimentaire bi mooy orienté suñu vision. tey boo toogee sa kër télé loo gis xale lu ñu gis. lépp publicité yëpp pour gon la gëmloo leen lii mooy lekk bu baax. mais Tunkara est-ce bu doon loolu mooy lekk bu baax feebar yi dina continuer du yokk. ay chips yi baax na. baaxul suukar mais crudité nag comme ça ay salade. exactement loolu mooy lekk. yooyu la baax yooyu baax. mais yooyu ñun est-ce soxna yi fii ni ñu koy toggee baax. non parce que xamuñu njëriñ. parce que mais ni nan lañ ko non togg bi kay baaxul. parce que crudité. Hmm. parce que lan la ñuy recherché bés booy lekk booy ut ñam. Ah, yow boo yëkkatee ñam di ko lekk da laaj est ce que ñam bi daf may dundal wala daf may gaañ. Hmm. lan ngay recherché mooy li ñuy wax micronutriment fan nga koy fekk si ñam buy dund te boo jëlee banaan teg ko sa waañ tey boo ko fa tegee mu am peut-être couleur bu xaw a verte tuuti. au bout de deux jours est-ce que du évoluer loolu moo ngi fi ba léegi hmm. day continuer di évoluer kooku ko lekkee day dundal say cër par contre boo boo xam ne da nga ko togg légume par exemple nga togg comme ni ñu koy toggee famille par exemple da ngay dëgg dañuy baaral baaral bu lan nga fay baaral nekkatu fa ah, baaral di dégg xam nga ñun euh, dañuy euh, wax dëgg rek mooy ñun dafa am yoo xam ne amuñu si xam te yooyu tubaab bi sax dañuy wax ni c'est les sciences de la mesure mm-hmm. mooy solu ak lekk parce que xam nga sa yére tey buñ ko nattul boo ko solee du baax mu gaat wala mu ëpp ñamit dañ ko war a natt mais docteur ñun loolu amuñ si xam-xam waa léegi docteur parce que li nga xam nga dafa garaaw mhm. parce que affaire u lekk moom affaire u dund la ak affaire u dee exactement waaw docteur ñun léegi kon ñun moom docteur doy na waar de waaw moo tax ñun tey li ñuy def moo tax ñu investir aussi au lieu ñu dem di waxtaan ak corps médical bi ñun on s'oriente vers les populations mm. parce que pour man tey ah, si carrefour oh, lañ oh, nekk xam nga si carrefour lañ nekk carrefour bi ñaari voie la voie bi c'est vers la santé voie bi c'est vers la maladie te ñun ñëpp vers la maladie la ñu parce que li ngay lekk mooy définir sa qualité existence bu dee yow tey li ngay lekk sa yaram gisu si boppam directement vers la voie. mais docteur gis nga tey ku moo tax maladie cardiovasculaire yi. AVC yi léegi da ngay gis comme 30 ah, normal. loolu moo lay wan ni ak ah, y a un problème. Euh, docteur keroog dama dégg benn waay mu wax wax garaaw. mu ne euh, tubaab yi bi fi njëkkee indi pharmacie dañ bokk at. jaay lu tollook ay juróomi dërëm ñu ne mais lii lan la dem laajte gës ñooñu leen mais ñooñu ngeen di euh, bëgg faj ñoom lu ñuy dundee ñu indi ñu mu ne ñoo ñii duñu feebar sunu maam yi lañ doon lekk méngoo ak seen jë amul woon suukar amul woon diw amul woon xorom yu bëri naa la jox benn exemple mburu bu ñuy wax nii mburu nit ñi relation bu ñu am ak mburu dafa doy waar boo waxee nit ki bàyyil mburu day mel ni adduna bi day taxaw mais tunkara mburu boo koy lekk day mel ni bekk suukar bi ngay lekk Hmm. exactement day mel ni bekk suukar bi ngay lekk parce que dañu natt lu ñuy wax index glycémique c'est-à-dire rapidité bu yaram bi ñam bi di gaaw a yëkkati suukar si yaram bi référence bi sucre la boo jëlee par exemple 100 cent mooy suukar pain bi pain farine blanche bi lépp luy xam ne farine blanche lañ ko defar ñu ngi presque 90 95. lan exactement. mooy ay croissant yeeg ay lépp ci biir su ma gisee diabétique buy lekk pain damay tiit diabétique buy lekk pain damay tiit. parce que xam naa ni mi ngi gaañ boppam te xamu ko. moom léegi docteur tamit moom day xuuxalaate. mais kon non ba xuuxalaate. boo xoolee par exemple bu ma demee si si si maamu yaa sa bopp. su <laughs> ma demee si très mal barré. demee si maamu maamu niinaay. xam nga séeréer xamuloon mburu mais léegi gars yi village sax mburu la ñuy dëkk. non mburu par force. parce ah, léegi soo bañ suñuy moyen moyen moyen de de montrer que sama doom ñi liggéey léegi man kër ga tam mburu laay liggéey. dëgg damay gis des fois ay jeunes de 23 ans de façon fortuite nii nga def sa glycémie 3 grammes nga ci fekk. parce que léegi booy li ñuy ndëkki kilo mburu la ñuy ndëkki. Mm-hmm. potu ndaal li ñuy ndëkki ba et ñu dugal yëpp pat la sucre rek ngay def sa biir yaram. ceeb bi nag. teg ni mu la ceeb bi tam sucre la moo tax nga xool yow le matin sol nga sa bopp suukar midi nga ñëw sol sa bopp suukar ngoon bi bu dee suukar la parce que légume culture légume la ñuy ñëw xamoon. ñooñu amuñu ko ñun ñëpp suñu nu ñu yare man lii sax bu njëkk daan sama soxna jaru ngay jënd léegi parce que dañ koy sànni. waaw ba ma dem ba jàng ba xam njëriñ moom mais léegi soo ma tegalee soo ma xoolee man ni may lekk. bu am doo doo lekk ceeb. si damay lekk ceeb. chaque la chaque jour ma lekk ceeb noo koy lekkee mais dafa am dafa am la wax nii damay njëkk toppatoo sama yaram li mu soxla ba pare ma toppatoo bi plaisir mais am nañu ne légumes yi aussi ni ñu koy bayee pesticides yeeg yooyu waaw pour man loolu idéologie en fait idéal tollooguñu foofu moo tax man bio doo ma dëgg ma wax bio mhm. parce que pour man tollooguñu foofu il faut faire avec il faut faire avec dans tous les cas li ci am moo gë moo ëpp njëriñ koo xam ne du ko lekk mais cere boobu professeur dañuy bëgg a laaj docteur parce que wax na fi diabète sànq mhm. diabétique yi tey mhm. bu ñu de xam nga dañuy wax régime sept cuillères nga war a lekk ceeb ak yooyu boo doon bu amoon looy baaxee diabétique yi tey lan lay nekk waaw xam nga magum jëm nga ne ko lekkal sept cuillère noonu kenn mënu ko moo tax diabétique yi dañuy tricher. sept cuillère mënul téye kenn souvent feebar bi day tax ñu gën a foxale cest feebar bi day tous nit ki mu gën a bëgg a lekk nga ne ko ok lekkal kat sept cuillère du ko mën te souvent buñ li lañ di lekkul dañ ne wooy defal sept cuillère nga jël légumes yu ñu togg dina ko lekk mais du ko amal benn njëriñ. sax kuddu yi ngand la ñuy wut. exactement bu diabétique xamee. exactement ni li koy mën a li koy mën a faj si légume bi la nekk mais day doon légume yoo xam ne soit cru la wala vapeur ñaari façon yooyu moo baax. si légume hmm. soit nga koy lekk nii nii nga nga nga comment jël carotte bi rek xolli li ràppe noonu rek la noonu wala ñu taay ko tuuti mooy luy tubaab wax vapeur foofu am nga chance. fekk fa loo xam ne moom mooy amal njëriñ sa yar sa yaram soo ko lekkee ba pare assiette bu fees légume nga lekk ko pare tunkara set cuillère yi sax doo ko mun jeexal moom laa d'abord toppatoo sa yaram mooy lan légume yi li mu am si fan ñen mu indil ko seeram yaram boo pare nga jël tibb man par exemple set cuillère mënatuma ko jeexal. Euh, keroog dama dégg benn waaye euh, docteur mu ne euh, si alxuraan mhm. yàlla dafay wax ne nit ki moom bu juddoo ñu koy nàmpal. Mhm. nañ ko feral ci deux ans jigéen ñi nañu nàmpal deux ans mu ne comme foofu alxuraan dafa wax nii nit ki deux ans dafa war a fer mhm. maanaam kooku léegi soxlaatul meew mhm. exactement chaque jour si euh, hmm? samedi samedi bi rek maa ngi ci doon wax waxtaan xam nga lu tax parce que meew dafa am lu wax lactose bi nekk ci biir yaram bi dafa am lu koy li lu luy nekk ci enzyme bu ñu wax lactase moom mooy togg suukar boobu bi nekk ci meew bi boo gisee ci liir rek lañ koy fekk bu deux ans yi jotee trois ans lactase bi day génn ci yaram day disparaître. yaa loolu mooy li yàlla di wone foofu mooy bu nit ki feree soxlootul meew. donc ñun le fait que ñuy continuer moo tax nga gis léegi allergie yu bëri. waaw indigestion yu bëri. intolérance ci meew bi bëri. parce que xale yi léegi dañuy juru meew industriel la leen di jox. waaw ñoom ñëpp asthmatique ñoom ñëpp ay def allergie. Hmm. parce que intolérance bi nekk ci meew bi la yow tey di nga soow piir muy ngay am intolérance mais doo ko xam parce que bëgg nga ko. mais sa yaram mën mënatu ko digérer. parce que li ko war a digérer neexatu fi. Eh, lactase boobu daal boo amee ay ñaar ñetti. trois ans maximum mu disparaître. professeur li Fatima wax kaawu Fatima ni ñu koy réglé moom nee na bu xëyee ñaari banaana suuru ko. waaw ma ko ma ne ko yow man man maa la gën a. mu lekk ba <laughs> ñaari banaana léegi ku mel ni Fatima. waaw bëgg par exemple bu xëyee naan ndox. naan boo xëyee naan genn wàllu butéelu ndox. même naan kaasu. kaasu kaasu pamplemousse wala orange. lekk ñaari banaan jarul dugg ko da nga am problème mais ku mel ni Fatima ni Fatima nee na loolu a la nuit damay yeewu tout le temps di naan tamit loolu na damay naan tout le temps la nuit di naan ndox non amul problème. c'est bien moom c'est bien. ndox moom. au contraire dañuy euh, encourager nit ñi ñu naan ndox. c'est capital. aywa besoins fondamentaux léegi li mu li mu laaj nag euh, ku koo xam ni loolu suuru ko. waaw xam nga affaire bi pour man même bu suur rek li am solo mooy lan ngay indil sa yaram mm. man par exemple day dépasser ñaari banaan mm. parce que le maximum de fruits laay def bu may ndekki de telle sorte que lépp li ma soxla dans la journée dama koy am. yow fruit ngay ndekkee. fruit rek laay ndekkee li ma li ma def nii rek laay def parce que loolu yëpp mooy pro si protocole bi dañuy njëkk raxas suñu yaram ba mu set ndox bi loolu mooy njëriñam. Mm-hmm. après nga naan jus d'agrumes mu gën a raxasaat parce que c'est en fait l'anticancer que que loo gisee jus d'agrumes boobu c'est bien dosé en vitamine ñu déjà ñu def suñu meilleure protection contre les cancers. soo paree na nga dundal say cër le maximum de fruits. donc souvent ñun on le fait en smoothie c'est-à-dire da ngay yor sa mixeur mettre le maximum de fruits nga def ko sous forme de smoothie. mais mais docteur li dafa am solo mooy euh, mode de vie la te mode de vie du leen lu dul. orientation léegi nag boo orienté woo si dara da ngay jël ay jumtukaay sa xel di si màcc sa xel di si nàcc nga gis ni que affaire bi day tàmbalee ñoŋ parce que lii yow mhm. euh, si fii nga jëm te euh, fooy jëm rek doomu aadama noonu la ko yàlla bindee fu muy jëm rek léeg day yóbbaale ay bagages yoo xam ni moo ko fay euh, yóbbu docteur lan ngay jeexale li may jeexale kay mooy wax rek lekk lu am solo la lekk bi moo ñu mën a faj wala lekk bi moo ñu mën a feebar la te ku nekk tey pour man li am solo nga gën a gëstul sa bopp xam lan mooy njëriñ rek teewaat sa wër gu yaram sa say et puis ñëw seet si ñu mel ni ñoom docteur Keba ñi parce que euh, xam-xam dañ koy dem parce pour man li may wax yëpp li may dund la moom la li naa dund c'est-à-dire ñu newatuñu si théorie mhm. parce que bu ñu tàggat nit day fekk ñun ñu expérimenté ko ba pare mhm. donc li ñu expérimenté loolu la ñuy wax ba tax na feebar bi du sa docteur moo la koy géral du hmm. kenn moo koy géral et eh, eh, euh, baal ma nag kii nag activité physique tamit. activité physique baax na pour wër gu yaram. Hmm. maintenant moo tax moo ne bu dee ku bëgg a ku bëgg a perte poids. Hmm. du physique bi mooy mooy déterminant bi. déterminant bi si lekk bi mooy lekk bi la euh, mais euh, tey activité physique bi surtout soxna yi fii dañuy wax ci jigéen ñi léeg-léeg bu ñu demee sénégalaise bu commencé am borom kër wala dugg si quarantaine rek léegi dafay oisive dafay toog dootul yëngatoog yooyu. ba hypertension ak diabète yeeg yooyu ñëw seet si la. parce que ñoom déjà bu ñu seey rek dañu changer seen mode d'alimentation. dëgg la commencé affaire yi suukar bi pâtisserie fast food waaw jus yi ñuy defar suñu kër yi nag. suñu jus locaux itam beneen problème la Tounkara boo xoolee quantité de sucre bu ñu def. si dañ koy kii ba mu saaf ba yow boo naanee suukar ngay ko donc lépp li ci bénéfice wala lu baax si jus bi sax yàq nañ ko parce que suukar moom feebar rek lay dundal. mais professeur fekk suukar rek pour xale yi. parce que da gis xale yu ndaw ñu leen di tibbal ceeb ak ceeb beeg yooyu xale yi aussi parce que wax nii mooy peut-être que dem ba nekk mag. dégâts am na ba pare. waaw exactement wala wala habitude bi am na ba pare. mais xale bu ndaw bi ci lan lañ ko war a nàmpatal. waaw xale yi nag foofu laay wax souvent ñun parents ñoo war a communiquer. parce que hmm. éducation la laaj. Hmm. xale li mu gis rek lay yaakaar ni mooy gën comme léegi dañ leen di bàyyi si télé bi ñoom dañuy gis. publicité yi rek yaakaar ni loolu may lekk chips yi euh, nu mu tudd yi cornflakes yooyu lañu yaakaar hamburger yi ak jus yi ba tax nañ xale boo xoolee léegi à trois ans nga gis xale di la defal carie dentaire dëgg la c'est pas normal xale di def carie dentaire trois ans lan lay tekki suukar bi la parce que suukar bi bu nekkee si si kaw bëñ bi day transformé en acide su nekkee acide bëñ bi dëggal yaram bi day jël calcium bi nekk si bëñ bi pour neutraliser acidité boobu le fait que muy ponctionner acide ak nu mu tudd calcium bi si bi si bëñ bi moom mooy commencer nag di fragiliser os bi. ba nit ki xale bi mën na. Adja dernière question. en fait ci femmes yi nga xam ne bu ñu comme amee borom kër. dañuy commencer di bàyyeeku di am yoon en ñoom tax ni ñuy defee sport. dafa dangereux parce que da nga leen gis sol taxaw si naaj bu tàng bi di def sport te loolu pense que ni baaxul seen yaram loolu na en fait sport ah. transpiration en fait mode d'évacuation toxine il faut ñu transpirer ñu lakk c'est dangereux taxaw ak toile amul problème naaj bi moom ñun sax boo xoolee lëf au contraire bañ a toog si naaj bi moo dangereux ah. parce que boo xoolee ñun tax léegi suñu rythme de vie tax na ba naaj bi duñ ko gis kii xëy na day jógee këram le matin dugg bureau ba buy génnaat du gis naaj bi alors que la principale source d'énergie c'est le soleil naturellement euh, delloo njukkal euh, docteur euh, Keba Tamba parce que ci yàlla ñun de <laughs> maam cadavre <laughs> man de heureusement que que teel naa ci gëstu parce que man benn repas laa am par jour ah, man du ma banaana lay laay lekk benn walla ñaar guddi gi damay naan ndox rek. moo tax Paco garde la ligne. aywa euh, lan ngay jeexalee Fatou. lu tax ngay naan ndox rek guddi. parce que damay naan ndox parce que ndox dafa baax pour rein nga bañ am ay pré problème mu rein xam nga di. kon midi rek ngay añ. waaw ah, man midi daal ni naa añ añ bu baax. bu baax après nga toog noonu. guddi gi après xam nga lekk samay fruits ndox rek nag laay enchaîner. aywa fruits nag. baal ma fruit da nga koy lekk avant avant ngay lekk. man nag sincèrement contraire bi laa. non non il faut il koy inverser. Eh, eh, docteur mi ngi wax lu am solo léeg ñun de bu ñuy dessertu. dañuy añ ba pare. Euh, Nina bu ñuy bu ñuy euh, dessertu. li ñuy woowee dessert ñun da ngay añ ba pare. soog a lekk sa fruit wala nga reer ba pare soog a lekk sa fruit mais docteur nee na loolu baaxul. docteur waaw baaxul parce que boo xoolee fruit dafa am suukar te fruit si suuf intestin yi lay lañ koy di lay digéré wu. soo lekkee loo xam ne da koy bloqué fii parce que nga lekk ceeb wa nga lekk yàpp. lu diis très rarement laa koy non exemple bi ma lay jox mooy ñam boo xam ne day bloqué fruit si kaw. Mhm. bu fi defee 15 minutes sa estomac parce que estomac bi dafa am acide. Mhm. bu fa defee 15 minutes parce que temps boobu la di la fruit di di la ñuy seen temps de digestion 15 minutes bu yàggee fii rek. suukar bu nekk foofu day transformé en alcool alcool bi dem si sa foie moom nga gis souvent. cirrhose su cirrhose chez des musulmans qui n'ont jamais boo xoolee sax actuellement moom la wax la NASH. c'est-à-dire euh, boo xoolee États-Unis te presque loolu mooy épi pandémie bu fa nekk. donc mais est-ce que nga nga lekk. Mhm. teg ci lu sedd danger la. non lu set xam nga ñun africain ñoo koy naan boo demee si pays de référence longitude asiatique asiatique bi naan kon ndox bu sedd baaxul docteur baaxul ndox bu ndugg parce que laaj naa ko ba souligné naa ko professeur bërki démb docteur bi fi ñëw maa ni ko sooy xool chinois uh-huh. xam nga dañuy teg chaque fois mais lu tàng la ñuy rek rek sénégalais moom day euh, docteur euh, Keba Tamba vraiment indi fi lu ama solo si euh, wàllu wér yaram dañu fexe ba sunu sunu wér-gu-yaram sunu lekk indi ko ndax sa lekk bu sell bu sellul wér-gu-yaram moom doo ko mën a am te boo amul wér-gu-yaram léeg lekk sa dund dina naqari ba yow Euh, maanaam doo mën a texe fii ci kaw suuf ndax euh, wér-gu-yaram def sa Nina lan nga jeexale waaw euh, wax ñu sama mbokk bi mel ni am moom sportif de haut niveau la man bi may teg quoi moom sport il vingt ans vingt cinq ans je faisais du sport bàyyi sport parce que jàng bi ak yenn niveau yi mais ñu jigéen ñi ñoo yor kër yi ñoom ñoo mën a def famille bi nekk en bonne santé famille bi feebar. yenn yi ni ko suñu moromu jigéen ñi jël en charge parce que santé bu fër famille bi wëree rek comme sama benn maman camerounaise li mu doon wax c'est la maman qui tient la santé de la famille. quand la la famille est en bonne santé ça veut dire que la maman a géré comment la famille s'alimente. na ñu gën a góorgóorlu ci loolu ma wax sénégalais yi aussi ñu ñu gën a faratal di di togg feuilles yi faratal mbuum. farataal yenn kii parce que loolu am na ci ay yu am solo yu si nekk yoo xam ne. ay ferñeent. Euh, docteur xam naa ne ci femme africaine moderne dinañ. dinañ ñëwaat ñu waxtaan bi looy jeexlee. Euh, bëgg naa mu ñëw femme africaine ma mais foog mu ñëw xel ak xol. ah, ah parce que c'est extrêmement c'est extrêmement waaw <laughs> c'est ah, <laughs> ah, important. donc man li may jeexale rek mooy li ma doon la wax ci njëlbeen bi mooy actuellement dañu sentir ne y une désertification du débat public mm-hmm. parce que loolu mooy ñi war a wax duñu wax. ñeneen ñi jël espace boobu di wax lu ne di dugal lu ne ci bopp nit ñi mm-hmm. ñu dem tey ba gis ay pub yu mag a mag ñu sponsorisé ko def ci xaalis bu bari sous forme de théâtre mm-hmm. wala de téléfilm ñuy jàllale yoo xam dara baaxu ci ci suñ dund noonu la ñuy jëlee tey ji li ñu doon wax fi léegi ci waru handicapé yi pour man stigmatisation yi ñiy def théâtre dañ ci yokk lu bare bari da ngay gis ku jouer théâtre jouer rôle lu benn gaana wala koo xam handicapé la wala muuma ñu koy toroxal ci biir film bi wala muy jouer un sale mhm. bulo ci biir film bi comment nga ñu day refléter société bi waaw exactement mais ñoom ñoom au lieu que ñu ñu déconstruire ko yenn saa yi dañ koy dañ koy kii dañ koy ndaxte perception dafa am solo. Mhm. donc euh, encore une fois c'est euh, invité bi di la di la ñaanal bu baax et puis di gërëm aussi di sant. benn doomu ndey bu tudd Atex Sarr nekk Fecca Jaay nekk ñawkat Pisco ci Podor Yasmina Couture Ndiaye styliste soxna Ndate Fall donc di leen gërëm di leen sant <laughs> Khadija parce que débat ko waxee sànq ñu ngi recevoir benn message bi ñu une pomme par jour. mais comme docteur Nen dañ ko yokku. le maximum le maximum de fruits. sa papa daw dafa la ko wax. waaw maa ngi koy nuyu sama papa daw dafa le maximum de fruits et le maximum de légumes c'est le c'est la meilleure chose à faire. donc ñuy remercier képp ku toogoon duñu seetaan may remercier spécialement Ablaye Ndaw depuis Agnam di remercier Oudou depuis Wadabare ak képp koo xam ne yaa ngi toogoon duñu seetaan. aywa Fatima dama koy jaajëfal rek euh, débat bi am na solo trop en plus am na ay enseignements yi nga xam ne jëlee naa ko ci mais damay remercier ñi nga xam ne ñoo may jàppale depuis émission bi mu dooree ba tey may ñaanal tamit sama lion yi ñu am ndam fële ca reçu may jaajëfal euh, ki nu mu bu nekk Liberté 6 ma ñëw dem HLM jaajëfal iso ak at yi nekk ci kaw ak ëmma ma ñëwaat ba sama koñ ñëw ci ndey ah mais euh, dañu may jàppale dañu may jàppale mais mais Tunkara dafa am ñoo xam nga tere dafa métti mais am na ñoo xam ne. waaw ndax am na ñoo xam ne dañu ah, lay jàppale Tunkara ah, dañuy ñëw yow si mën nga ne. waaw ah baax na bàyyi bàyyi bàyyi bàyyi ba suba nga wax. des na madame madame Sarr Ndeye Ndiaye l'infatigable xam ne à chaque fois bu ñu fa demee dañuy dañuy taxawu ak Moussa Moussa bi nga xam ne bu ñu commencé ba tey ci affaire Lions yi mu ngi ñuy taxawu di ma defar ay tenues rafet Moussa Ndiaye merci c'est si télé bi rek la ma gisee ma koy remercier dem ba Thiayaye nag di leen jaajëfal dem ba Kabakoto di leen jaajëfal Khadija. <laughs> professeur maa ngi remercier Pape Djibril je te remercie énormément parce que su ma wàccoon tey te remercier wu ma ko mu rey Bright Air by Adjara donc donc maa ngi koy remercier bu moo jaar ci bopp bi mu euh, karaw euh, brésilien c'est un choix de vie comme on l'a dit tout à l'heure 77 887 38 53 dem leen fa korité baa ngi ñëw mi ngi mi ngi mi ngi def yu am yu ama am solo ci korité bi ci wàllum perruque ak cheveux donc dem leen seeti Bright da ngay publicité également ci kër gi lañ bokk ajara fii la bokk. ajara fii la bokk professeur Doum. <laughs> Pape ñii ñii nañu sonn nañu sa nuyoo <laughs> jërëjëf. ñoom nee na Sane fële ca Paris nee nañ Pape ak ay nuyoo bi ba pare. ba pare remercier Baar first class comme d'habitude ah. il oh. sama ñaari mafia nag laay nuyu tey du ma bëri. maa ngi nuyu ñaxtu ndeysaan message doy yaram la may yónnee. li oh. ma mafia bi foofu yëpp xam nga. suñu émission bi da leen di yokk jom. parce que xam nga da leen bàyyi ñu bàyyi lépp. ñëw nekk foofu di liggéey. ndeysaan nga xam nga nekkee wuñ fa ludul te moom day toog di seetaan ba trois heures du matin. ndeysaan sept heures mu xëy jóg dem liggéey dem bay waar xam nga. Mm. na leen yàlla jàppale waa Paris. ñi nga xam ne dañoo am jom. laay mm. waxal bon sama beneen mafia bi nekk Mauritanie nag. Mm-hmm. maa ngi nuyu ñoom Fatou Dieng di madame Thiam. di nuyu Astou Dieng sama xaafisu alxuraan. di nuyu nag spécialement sama doomu ndey. Eh, Souleymane Foutiou Sall borom Paris. Eh, di nga ne eh, ma jolie ma jolie di nga ne seetaan tey seetaan 2STV. Euh, delloo njukkal. Euh, ma jolie delloo yi fi ñëw yëpp tey euh, di leen delloo njukkal ak sunu ay techniciens ñoom amuñu seen fay sunu mbokk yi ne fële ca tubaa ñoom sama waa kër yëpp ñoom soxna Fatma Sall leen ziar ñoom nee na Sane fële ca Paris nee nañ Paco sa nuyoo yi bëri na. <laughs> sonn nañ si euh, di leen ziar ñoom ñoom mais mais Pago da wax lu am solo ñoom ñooñu ba trois heures du matin parce que décalage bi fi mu toll ni 2 heures la dañuy toog di ñu seetaan amuñu seen fay ñu leen di ñaanal suñu borom mu fay leen gën di fay euh, Mass Cooper lii ci euh, deux voies liberté si janoo ak sami municipal bi moom moo ñaw lii vraiment def benn man genre kii bi xaaral ma gënaat ko kii sax parce que sànq Pape ji bi nee na ma naa koy benn benn maanaam. xadija am na loo fàtte tey la laylatul xadar aywa euh, sama mbokk yi nga xam ni euh, vraiment ñu ngi si mbokk tijaan yëpp mbokk tijaan yeeg mbokk murit yi mbokk xaatim boo mboolem jullit yi nga xam ne yëpp tey ñu ngi euh, jaamu yàlla si guddi bi nañ ñu bañ a fàtte si ñaan ñun duñ leen fàtte si ñaan ñun tamit li ñuy def rek mooy ñaan leen yàlla dig leen daje ëllëg bu soobee yàlla wa